ci commune yëpp la war parce que aujourd'hui euh, acte trois de la moo sas collègue locale commune ñu am jumtuwaay bu ñuy wax plan de mais ci biir loolu la ville de Thiès dafa am lu mu lu mu taxawee mais la de Thiès dafa am lu ñu ko séntu dafa am fu ñu ko séntu ëllëg parce que fu ñu ko séntu ëllëg li koy wone wala li koy joxoñ moo di li am tey Bourdieu c'était la meilleure manifestation de Blaise Diagne daanaka soixante-quinze à quatre-vingt pour cent ci dafa manifesté boo seetee Ila Touba Thiès la départ ay ak autoroute Ila Touba boo seetee autoroute Thiès euh, Tivaouane Thiénaba la demee aux environs immédiats la doublement de la voie Thiès Tivaouane et cetera euh, sans compter la côte nord l'agriculture périurbaine, avec euh, véritablement le cas de, de, de, la zone de pour que nous Diander et ce suite. Donc, c'est tout ça qui devrait faire de la ville de Thiès, qui devrait conférer euh, à la ville de Thiès, en tout cas, une posture stratégique, suffisamment stratégique, pour pouvoir véritablement prétendre à jouer un rôle. Maintenant, l'OLUYEP, moi, faire un mandargaal li nga xam ne tey ville na ko ci yaakaar taxawee na ko ci gis-gis bu tey mais surtout pour gis-gis bu lépp donc planifier ci dëkk bu mel bu mel noonu dafa war a euh, taxaw ci anam yu wér taxaw ci xam-xam bu leer taxaw également ci participation bu wóor bu population yi ak acteurs yi nga xam ne ñoo ko si donc loolu moo tax ba nga xam ne bi le maire Talla Sylla convoqué na aujourd'hui quatre toutes les depuis l'université ba ci euh, conseil de quartier ba ci commune yi nga xam ni ñoo composé la ville de Thiès donc yaakaar nañ ni bu ñu boolee loolu yëpp xam-xam yooyu yëpp ak ñi nga xam ne ñi ñooy saytu li nga xam ne mooy liggéey bi yaakaar nañ ni ëllëg si biir danañ mën a teg loo nga xam ne lii ëllëg si biir Thiès waaye dañ ci fier dañ ci am fier dañ ci am mbégte dañ euh, vraiment loo xam ne lii lu leen lu leen lu leen lu leen soxal na lu leen yitteel la pour que ëllëgu cees vraiment ku nekk cees waa nga am ci une réelle fierté. ñu ngi lay sant jërëjëf. waaw